sa démb xam sa tey sa démb xam xam sa démb xam est une production de Goethe Institut en collaboration avec les Archives nationales du Sénégal et Kër Leyti la maison de l'oralité et du patrimoine. àdduna yàgg na waaye ci démb lay jóge déglu leen ma may ma nopp ma nettali leen jaar-jaaru Sénégal bu rafet bii sunu réew mii may leen ma nopp ma ànd ak yéen ñu tukki ci jëf ju mag ju réew mi may leen ma nopp ñu dundalaat sunu xel ak sunu fàttaliku ñun doom yi fàttaliku ay doomam di góor di jigéen may leen ma nopp ñu wax ci ñi nga xam ne seen jëf rafet na ba nettali bi rafet may leen ma nopp ndax sunu taarix dafa rafet te jar a xam may ma nopp seen noppi xol nag laa soxla ngir ma ànd ak yéen ba ci suñ biir xolu démb may leen ma nopp ngir ñu mën a dund sunu tey may leen ma nopp ngir ñu mën a waajal sunu ëllëg ñun ñooy taarix. xam sa démb xam sa tey di waxtaanee jigéen ju mag di waxtaanee Ndate Yàlla Mbóoj mi nga xam ne mooy jigéen ji mujj amuk pal ca waalo li ngeen Ndate Yàlla Mbóoj ñu ko xam ñëpp nataalam lañ gis boo ko gisee sax da yaakaar ne foto la waaye abbé Boilat ñu tuddee woon ko abbé David Boilat te 1860 moo jëloonu rëdd ko dessiné ko waaye nag dessin booba ana luñ ci gis jigéen ju taaru ju jongama ju am kàllaf yor gënn gu gudd mel na ku cay xëcc ngàngu naay ga yaatu lool ñu wër ko ana ñu ko wër mooy ñi nga xam ne ñooy wagguuram ku gis nataal bi xam ne kii mooy jigéen ju man góor xam ne kii mooy jigéen ju jekk xam ne kii mooy jigéen ju mat buur tata yàlla mbóoj ñépp xam nañ ne Fatim Yamar Xuriyaay Mbóoj moo ko jur ak Barak Amar Fatim Borso tata yàlla mooma ñëpp xam nañ ne mooy seen ñaareelu doom bu jigéen ana magam njëmbat mbooj kañ la ndata juddu 1810 fan la juddoo biir waalo waaye dafa teel a sëy nag teel a dugg néegu sëy ñu may ko kii nga xam ne doomu bàjjen wala doomu nijaay di baraag yërim ba ñu waaye ba yàlla weddee sëy ba sëyaat na ak ki nga xam ne jàmbaari xare la woon di saakura barko Jóob te ñu gën ko xam ci turu Maarooso Tase Jóob mu jóge woon Kajoor ana fuy mbokkam ne xanaa damel mel Joor ana fuy mbokkam ne xanaa sëriñ sa ca kokki njaga isa jéey waaye lan mën a jàpp luñ mën a jàppit nan jàpp ne 1846 ndaxte yàlla mbóoj ana ko mu wuutu xanaa magam ja njëmbat mbóoj njëmbat mbóoj fukki at juróom la doon Linguère waaye booba waalo bëri na xëccoo bëri na xeex waalo bëri na coow waaye ndate moom am fit am xarañteg politique mu daal di fexe ba nag jël gàngunaay ga téye kenn ca ña nekk ca dëkk ba ñeme woo weddi waxam waaye booba tubaab bi tubaab bi nëbbut benn yoon ne dafa bëgg moom lépp waaye moom mu ne faalewut tubaab lu tubaab mën a mel du ko tiital tubaab yëngalu ko ki ñu waxtaanee mooy Ndaté Yàlla bu leen fàtte ne 1847 Ndaté Yàlla ci boppam daf ne tubaab bi da ngay fay lempo ndax sooninke yi jaar fii waalo di dem di yóbbu jur gi ndar di ko fa jaay dañuy fay lempo mu daal di jàppale waa Trarza ca guerre ba ñuy guerre xeex ba ñuy xeex ak Brakna ak tubaab yi soldat waalo yi am fit sax ba àgg ndar dem dugg ca biir xuus fa waaye booba tubaab yi wax nañ ba sonn faalewu mu ne leen nag bu ngeen fii wéyee di dëgër bopp ak ñun lépp luy galak te ñu leen ko daan fay danañ ko dindi ndate yàlla faalewu leen yàlla na sax pépp fuy déeg bu fa kenn jaayet lépp lu ne ci moomeelu waalu gis nga France 1848 dañoo amoon gouvernement bu bees ca la république am booba nag biñ amee président euh, li nga xam ne mooy yaatal moomeel ci réewu Afrique yi dañ ko xawoon a soofantal waa général de Gaulle moom 1854 bi mu ñëwee nekk gouverneur moom moo ne day yaatal France waaye nag day taswaalu jógu ca benn yoon biñ ko joxee doole ak alal mu daal di dal ci kaw waalo jaxase leen néegu ndey néegu baay ñépp mu jaxase leen ndax booba li nga xam ne moom la bëggoon mooy lépp luy xaalis te ñu waroon ko fay ñu fexe bañ jot ci te yoon yi nga xam ne fa la jaaykat yi war a jaar ñu teg fa ay soldats yoo xam ne kenn du dal seen kaw kon ana fu mu njëkk dal ca waalo la dal moom Faidherbe waaye ñoom la ñu def waalo kenn mënu koo nettali dëkk bu nu romb lakk dëkk bu nu romb jël jurga dëkk bu nu romb jël nag jël gileem jël mbaam ku nu romb nag ngay xarekat buñ la jekkoo jàpp takk tëj la kaso ndata yàlla bi nga xamee ne gis na ne mbir yi dama tut mu dem kajoor toogi fa ginnaaw loolu kii nga xam ne mooy baraak moo mbooc Malick Mbooc ak ñenn ci kilifa yi ca dëkk ba ñoom daal ne tubaab bi jox nañ la loxo tubaab bi daal leen di noot bi nga xamee ne toog nañ gis ne nekk tubaab bi yombut ñoom gor yooñu dañoo jóg ñoom ñëpp dem gàddaay dem Fuuta Eli mi nga xam ne doomi Mouhamed El Habib la ak Njëmbët Mbóoj ne moom day fekki yaayam ndate yàlla ànd ak moom ngir ñu bañ li tubaab bi bëgg Faidherbe ba nag loola naqari ko mu daal di fekk baraag boo xam ne dañoo nangu woon ngangu naay ga ca moom di farapend aram géy mu daal di koy indiwaat teg ko foofa ca waalo noona nag la jóge dalaat ci kaw dëkki waalo yi dalaati ci seen kaw ba nasaxal leen kon ana lu mën a jàpp mën a jàpp mooy décembre 1855 gouverneur Faidherbe ca la toog ne moom mooy kilifa gi nga xam ne mooy kilifa gi gën a mag ci waalo mooy yilif waalo gis ngeen nag mbokk yi ñu daal di xaaj waalo xaaj def dagana xaaj def Richard-Toll xaaj def Mérina Nanguène xaaj def Lamsar bu ngeen ko xoolee ñeenti gox yooya yépp ay canton lañ leen def jël ay chef de canton teg ko fa mooy yi njëkk ci tubaab yi def kon nag ndate yàlla moom ak ñaan ak moom ñu daal di leen di génne réew ma waalo dañ ko tiim ak i doom ak i kano di ko ko dóor muy bañ ba tubaab yi dal ci seen kaw nanguwaalo muy nag colonie française bi njëkk ci Afrique dendum nit ku ñuul loola lu jar a jàppale ci taarix waalo ngi noonu ndata yàlla ngi noonu waaye tubaab yi ñoom moom waalo yirif ko feteer bu toog ci koom doyu li nu bëggoon mooy képp koo xam ne war ngaa mën a jóg ne tubaab bi du fi toog nan dal ci sa kaw ba yàqal la xam ngeen ne loolu ndata yàlla mënu ko nangu xam ngeen loolu waalo mënu koo nangu xam ngeen na loolu der bu ñool mënu koo nangu moo tax ku jur doom deewoo 1858 Sidiya Diop Sidiya ana kuy ndeyam Linguère ndate yàlla moom moo ne duma seetaan sama ndey lim doon xeex tubaab bi di am dam ci koom ñun waalo waalo ñuy sëgg rek tubaab bi jaar suñu kaw booba nag mbokk yi ca bañ dooraat bañ dekkiwaat bañ tàngaat tubaab bi amatul jàmm Linguère na yàlla bi muy génn àdduna mi ngi toll ci atum 1860 waaye bi muy génn àdduna waajal na jabootam bi muy génn àdduna waajal na doomam bi muy génn àdduna Sidiya taxaw na Sidiya nee na day bañ waalo nee na day bañ kon bi muy génn àdduna benn tubaab mënut a taxaw ne ndata yàlla dama ko teree bañ ci bañ la judd ci bañ la màgg ci bañ la gàddaaye ci bañ la génne àdduna 1860 waaye nee naa leen ba muy génn 1860 fekk na njabootam taxaw bi muy génn 1860 fekk na mu nàmpatal leen ci bañ bi muy génn 1860 fekk na bañ sax na waalo dekk na waalo ndax ci deretu waalo la ne kon nag mbokk yi ana ku mujj falu ci jigéen waalo xanaa ndate yàlla ana ko mujj a jàkkaar lool xanaa gouverneur fédéral ana ki ne woon tubaab bi dangay ngay fay lempo boo bëggee jaar waalo xanaa ndate yàlla kuy ndate yàlla ndate yàlla mooy jigéen ju màgg jooju nga xam ne boo gisee nataal ba ma nga toog boo gisee nataal ba ma nga sex gënn ga gisee nataal ba ma nga ca muuñ ga boo gisee nataal ba ma nga ca mat ga boo gisee nataal ba ma nga ca fulla ja boo gisee nataal ba ma ngay màndargaal waalo ak jigéenu waalo ak fulay jigéenu waalo ak fulay der bu ñuul ak fayday der bu ñuul kooku lañ doon waxtaanee tey xam sa démb xam sa tey ndate yàlla mbóoj muy jigéen ju mujj falu waalo tubaab bi ñëw xeex dal ci kawam waaye mu jur doom ju mat doom di Sidiya Sidiya Jóob ndate yàlla xam sa démb xam sa tey xam sa démb xam sa tey di waxtaan wu leen Goethe Institut may ànd ci ak Archives national du Sénégal ak it Kër Leyti maison de l'oralité et du patrimoine direction artistique ak présentation Massamba Gueye assistant Abou Soumaré régie technique La Factory bu Ousmane Faye ci xarala gi Roland Sagna coordonnatrice Bouye Fall Institut